maanaam ñoo a réew mi mbokk yi Gambia Constitutional Review Commission muy CRC ñoom ñooy jóg nag di nemmeeku euh, réew mi nekk biti Gambia su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy doomi Gambia nga xam ne ñoom ñoo toog foofu ca bitim réew ñoom la ñuy nag euh, waxtaanal su ko defee nag loolu mu ngee commencé fi nga xam ne mooy Africa Europe Middle East ak United States of America su ko defee nag seen jëlbeen tànk bi nag ñu ngi war a dem fi nga xam ne foofu mooy Sénégal Gambien ñi nga xam ne ñoo toog Sénégal dinañ war a waxtaan ak ñoom ak juróom-ñett di alarba ci weer gi nga xam ne moom lañ nekk ni ci place bi ñoo wax ne Sénégalais Chamber of su ko defee nag Nouakchott foofu ca Mauritanie eh, ñu ngi waxtaan ak ñoom ñaari fan ci weeru mai fi ñu koy def nag muy hôtel Taïf la eh, su defee nag eh, façon meeting boobu nag dinañ ko dal di amal Saudi foofu ca Jidda ñaari fan ci weeru ci at gi ñu nekk ni lii nag bi nga xam ne ñoom nemmeeku nañ Gambie yëpp waxtaan ak doomi Gambie yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ci biiru Gambie ci réew mi yëpp su ko defee nag ñu ngi war a génna waxtaan ak Gambien ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti réew ñoom it nag ñu wax ci seen i xalaat ci li nga xam ne moom la ñuy bindaati ci téere ju bees boobu leen kon nag jóg leen ngeen bokk ci taarke ji nga xam ne Gambie yëpp ñoo si bokk nag ñu taxawal ko